dinga ko jotaat téeméeri yoon ba noppi am dund gu dul jeex waaye ñu bari ci ñi jiitu ñooy mujj ñi mujj ñooy jiitu ji